internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu ci réew mi ak ci bitim réew. internet yi ñu bàyyi xel ci seen info point ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen dégtal li gën a fës ci xëtu njëkku yéenekaay yi tey lundi di 22 août 2022 ñu tàmbale kook yéenekaay bi di l'évidence quotidien ñoom nag eh, dañoo ñëwaat ci màggalu Tuubaa yi nga xam ne ñu ngi koy eh, waajal ñu ne nag fi mu nekk nii eh, la nga xam ne moom mooy ndox yi nga xam ne kon taw bi moo ko fa def moo leen jaaxal ba sax ñi ut na lañu ñu koy saafara ñëwaat nañ itam ci xalif bu Medina Baye di Cheikh Maguette mi nga xam ne mu ngi fàttali kon coopération bu Ligue islamique mondiale ak union. africaine ci jamono joo xam ne sax fi mu nekk nii moom bàyyeekoo na fii ci Sénégal dem Arabie Saoudite ci invitation pour Rabitatul Arabia ba léegi ñëwaat nañ ci li nga xam ne moom mooy njëg yu yokku ñeel ay prix yu denrée rawatina nag euh, soble si ñu ne nag loolu fi mu nekk nii nekk na loo xam ne baaxul ci nguuru kii di Macky Sall. le soleil yéenekaay yi dañoo ñëw ci li nga xam ne moom mooy programme cash transfert nee nañ nag lu toll ci cent soixante trois mille vingt huit ci ay bénéficiaires ci biir semaine bi dinañ jot li nga xam ne moom mooy seen ay koppar ñëwaat nañ itam ci suñu gaynde kii di Ismaïla Sarr ñu ne nag moom engagé wu na ak club bii di. Aston Villa wante itam ñëwaat nañ ci sept cent tracteurs ak cinquante moissonneuses batteuses yoo xam ne ñu ngi koy xaar nguurug Sénégal mu ngi koy xaar kon ngir ci wàllum euh, mbay mi enquête yéen kay dañoo ñëw ci li nga xam ne euh, moom mooy UMS euh, Union des magistrats du Sénégal ak daal taxaw temm gi ñu taxaw ngir ay rëq-rëq yoo xam ne kon wala boog ay jafe-jafe yu am gis seen kuréel googu ñu mën ko jooyanti ñëwaat nañ itam ci Toussaint Manga ma nga xam ne nag kiite na lii di PDS maanaam démissionné na bokkatul PDS ñu ñëwaat itam ci eh, sargal bi nga xam ne defal nañ ko samedi bi ñu génn kii di Mamadou lii eh, di njiital ma revue de presse moom nag eh, moom moo ñuy jox une journaux yi nga xam ne chaque jour kon moom sax laa leen di digtal fi mu nekk nii. le mandat yéen kaay dañoo ñëw ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ne am na ci këru liggéeyukaay bii di Senelec ñu fësal nag seen xëtu njëkk nataalu ki nga xam ne moom mooy directeur général ba euh, wante itam euh, kii di euh, kii di secrétaire général bu syndicat unique des travailleurs de l'électricité ñëwaat nañ itam ci week-end suñu gaynde yi ñu ne nag euh, kii di Sadio Mané moom euh, weekend am neex na wante nag Kalidou Koulibaly ak euh, Edouard Mendy kii dañ ko rouge ka ca des encaissé bii boo xam ne dafa jëf erreur Walf Quotidien dañoo ñëw ci li nga xam ne moom mooy Aminata Touré fi mu nekk nii nag ñuy daal ñu ne ci diggante primature ak assemblée Euh, national ñu ne daal euh, ñaari nekk yooyu bu ci war a jiite fi mu nekk ni ñu ne loolu mooy soxlaam ñëwaat nañ itam ci Pierre Goudiaby Atepa mi nga xam ne moom nag euh, day laaj mu ne lii di BRT bi ndax duñ ko soppi def ko tramway Sud Quotidien dañoo ñëw nag ci doxalin bi nga xam ne moom la quatorzième législature d' assemblée nationale war a am ak daal na mu war a doxee ñu ne nag euh, ki nga xam ne moom mooy euh, docteur El Hadji Oumar Diop bu université Anta Diop bu Dakar nee na nag euh, ñii di pouvoir bi il faut que ñu lëkkaloog ñi nga xam ne moom mooy opposition bi ngir daal assemblée nationale kon mën a am dox bu jaar yoon ñëwaat nañ itam ci mobilisation yi nga xam ne mu ngi wéy di am ci mbirum hôpital la Dantec ak ñi nga xam ne daal. andu ñu ca euh, lañu bëgg jaay li nga xamne mom moy ben benn ci suuf vox pop dañoo ñëwaat ci sargal bi nga xamne demb amal nañ ko jëmele ci mamadou li bu an news borom euh, rew borom kon uni ak euh, li nga xamne rek mom moy liggey bu am solo kon bimu doon def ñuko doon sargal wante tam ñëwaat nañ ci njitu rew mi ak audience bi nga xamne amna ko ak 82 député yi nga xam mom lañ fal ci coalition benn bokk yaakaar ñu ne nag lu tollu ci juroom ñeenti waxtu waxtan nako ko ak ñoom l'observateur l'obs dafa ñew nak mu ne li nga xam mom moy fièvre hémorragique de Crimée Congo ko ne ko fi ci Sénégal ba sax ñeenti cas gis nañ gis nañ ko ci kon am ko xam ñak na ca bakanam ñoat nañ itam ci euh, ki di Jean Pierre Mané euh, bi nga xam ne kon euh, dafa génn àdduna mu nekkoon nag journaliste reporter foofu le ca l'observateur wante itam ñëwaat nañ ci ndaje bi nga xam ne Macky Sall am na ko 82 députés yu benn bokk yaakaar ñu ne nag euh, waaw 9 heures de temps yoo xam ne kon daal euh, waxtaan nañu ca ngir xool kon nañ la ñuy doxalee ci assemblée nationale bii ñu jëm ñëwaat nañ itam Ismaïla Sarr mi nga xam ne kon nee nañ dem na Aston Villa li nga xam ne nag mooy prix transfert seize virgule trois milliards de francs CFA la. Les Échos yéenekaay dañoo ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy assemblée générale bi nga xam ne CNG de lutte amal na ko ñu ne nag lu toll ci trente et million millions sax booy xool dagg nañ ko ci li nga xam ne moom mooy mbëri yi ci saison bi wante itam li nga xam ne mooy total bi nga xam ne euh, mbër yi am nañ ko ci cachet toll na ci deux cent quarante quatre million quatre cent cinquante mille. franc CFA ñëwaat nañ itam ci Macky Sall ak euh, daje ba mu am ñi nga xam ne ñoom ñooy ay euh, député wante itam ci euh, li nga xam ne Serigne Bassirou Abdou Khader wax na ko maanaam position Touba digganteem ak lii di état bu Sénégal. réew mi quotidien dañoo ñëw ci sorte bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko muy conférence de presse bu mujjëm bi wala boog déclaration de presse bi ak tontu yi nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi koy nemmeeku euh, ci pouvoir bi ba ca mujj nag moom mooy Farba ak euh, kii di Abdoulaye Sow mi nga xam ne yëg nañ ko lu mel ni xeme tribune yéen kaay dañoo ñëw ci maître Wade ñu ne moom nag mu ngi fàttali xalif général des muride lii di protocole bu Massalikul Jinaan ñu ne nag ak euh, jigéen nga xam ne njiitu réew Macky Sall defoon na ko fa ne dina bàyyi kii di Karim Wade eh, mu ñibbisi ci lu amul sax benn condition wante itam ñëwaat eh, nañ ci Karim Wade mi nga xam ne nee eh, nañ mu ngi daal wax xalif général des Mourides ne moom dafa bëgg a doon lii di candidat ci élection présidentielle bu 2024 ñëwaat nañ itam ci conséquences yi nga xam ne kon taw yu ñu nemmeeku fan yi am na ko fële ci Kër Massar du fi ci Cap Mbaw wante sax euh, fële ca Saint-Louis nga xam ne am na as ndaw su am 45 euh, ans boo xam ne dafa ñàkk bakkanam gannaaw bi ko euh, courant marché laas yéene kaay ñëwaat nañ ci daje bi Macky sàll am ak ñii di député ñu ne moom nag kañ na leen te it yëpp na leen bu baax a baax a baax gannaaw bi mu seqee ñoom waxtaan boobu wante itam ñëwaat nañ ci candidature Khalifa Sall ci élection bu 2024 ak union des magistrats bi Sénégal mi nga xam ne daal fi mu nekk nii. dañoo bëgg wax yu ñaaw yi ñuy wax di ko teg seen der mu dakk bés bi le jour ñëwaat nañ ci audience bu njiitu réew mi am ak i député mu wante itam ñëwaat nañ ci Mané Sadio Mané mi dugal ñaari bit démb euh, doublé euh, ak Kalidou Koulibaly bi nga xam ne kon dañ ko ruus muy kon euh, saison bi nga xam ne wala boog weekend bi nga xam ne suñu Lions yi am nañ ko ci seenu club foofale ca bitim réew le quotidien yéen a dañoo ñëwaat euh, ci daal euh, makki Sall ak député mi ne nag diggante 16h ba 2h du matin seq nañ ko ay waxtaan ñu waxtaanee fa nag euh, li nga xam ne moom mooy seen taxawaay ci assemblée nationale bi jëm ñoom it yëgle nañ ne li nga xam ne moom mooy nouveau gouvernement bi di nañ ko installé dinañ ko daal kon fal gannaaw bi nga xam ne installé nañ assemblée nationale ñëwaat nañ itam ci mbirum basket. ak euh, kii di Amar silaa ñu ne moom nag dafa won ginnaaw équipe nationale bu Sénégal gannaaw bi nga xamee ne sax bokk na ci nit ñu retenir woon ñu ne nag kon ca la wane ginnaaw dem fekki euh, clubam. stade yéen kay dañoo ñëw ci euh, Sadio Mané ak Iliman Ndiaye muy ñaari gaynde yoo xam ne nag ràññeeku nañ lool ci weekend bi ku ca nekk dugal ñaari bit. wante itam euh, ñëwaat nañ ci kii di Kalidou Koulibaly mu am na carton carton rouge am bu njëkk ci championnat Angleterre ak Edouard Mendy mi nga xam ne dafa def erreur ba encaissé ab but. sunu lamb lañ koy euh, jeexalee ñoom nag dikkaat nañ ci bilan euh, financier bu CNG ci saison deux mille vingt et un deux mille vingt deux ñu ne nag lu toll ci cent soixante dix millions encaissé nañ nekk nii seen i kees am na lu toll ci. douze millions ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, cent quarante cinq journées yi nga xam ne organiser nañ ko ci saison bi euh, loolu nag ñeen lu toll ci cent vingt huit écuries lii la ñuy na tey ci li gën a fës ci xëtu yéene kaay yi di leen jox daje ëllëg jaa ngeen jëf.